عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق سخو دي سن مربي موي سيدي برهما baay baay baay baay baay baraama fasaleen àddina bëgg yàlla bañ a réeroog baay seqoo de seen mu rabbi mooy siti baraamaay Ibou Diouf ne Ibou Diouf ne yàlla daj bàkk lislaam bi jëbal ko baraam tijji nambi leer yi jëbal sidi baraamaay yàlla mi daan yónne yónneetul jëmam jafe teew sirul haqi ñëw na soodal baay baraama ay baraama baraama baraama ñay wi xàlla mabal doom jaa ma sob yi muñ leen xottu mboot mi lii moo neex baay baraama lab leen ci pey bi te bàyyi bokkaale bàyyi bu loolu bokkaale day yëngal xaras dere ki may soob lanka waamee dox di askeej ci coono ngay dee xibaar yi sànq nañ gaañi weddi baraam baay Ibou Diouf ne la ci maam Adama ba ci Abdalaay li fi ma sa yëngu sabal ma coob mu ndaw warloom gaa gën ay jaane si ngaangaay mahjoobi wattu leen nongoy sidi baraham yàlla yónni kamu daan yónni kookoo leen di waar kullu laaqi ñëw na soodaan soodaan sidi barahamaay ki daan garde suuf si asamaan si am na